ci logistique bi. Mhm. dégg nga. Mhm. matériel ba. Mhm. camion yeeg carburant beeg la koy yóbbu dëkk ak dëkk. ak sécurité ñiy garder ceeb beeg patati patata. waaye bi Mansour di démentir nag ci euh, ne euh, quatre départements yooyu ñu tudd. bokkuñ ca. boole waale ca. weddi waalewul juróom benn milliards yi. waaye nag bii gis naa ko ci bokk su Vox li mu ne un milliard cinq cent cinq cent la. cinq cent Diop si mu ne boo dajalee ñoom dispositif bi yëpp un milliard huit cent la dégg nga kon maanaam ñoom li ñu def euh, soixante soixante sept soixante sept milliards euh, soixante sept milliards ak poussière moom lañ ci def kaay sept milliards ak poussière kaay kaay rek alaaji barki démb yaa fi génne woon calculatrice kaay kaay alaaji mhm. danu ne mhm. ñoom ak soixante quatre milliards waaw déglul de soixante quatre milliards mhm. dinañu dimbali un million de ménages maanaam mooy la moitié de la population mooy huit millions de sénégalais waaw dégg nga loolu kon moom mooy tekki ne ak cent vingt cent vingt huit mhm. milliards alaaji mhm. kon dana danañu jàppale deux millions de ménages mhm. huit millions de sénégalais multiplié par deux seize millions kon maanaam cent soixante cent vingt huit milliards kon population bi sans exception ñi am ak ñi amul ñëpp alaaji dañ leen dimbali comme la France pratiquement noonu la demee de xam nga li ma la kon solo ay calcul mooy de cinq cent milliards on pouvait confiner mm -hmm. les Sénégalais pendant un mois déggoo ma de. est-ce que Sénégalais li ñuy dund mooy mooy mooy seen kit yi ñuy joxe. non attends xam nga xam nga nag buñ naroon dem ba yegg confinement total alaaji hmm. li ngay dundee sa kër nag maanaam bëccëg bu ne nga bëgg a rey mbotey. Hmm. dégg nga reer wu ne nga tër juróomi ganaar hmm. yow yaa nga kër song. dégg nga loolu. Mm-hmm. bokkoog man mii nga xam ne maa ngi fii ci géej waaye alaaji. non non defal ndànk. moom kër ku leen tëj rey nga leen. déet waaw waaw damay defal ndànk. buñ ne dañuy confiné ñu ne luyaas bi dégg nañ benn waay boo xam ne mi ngi nekk ci benn uh, kii nii consommateurs yi ne. Uh-huh. un milliard et poussière. Uh-huh. état bi. waa moom lay dépensé ci ñi nga xam ne ay locataires lañu. Uh-huh. confinement bi un mois la. président nee na bu liy continuer niñ tëj nit ñi quinze jours. mais calcul bi alaaji un mois lañ ko calculer de. c'est cent vingt huit milliards là. deux millions de ménages seize millions de sénégalais tëbatuñ ñi am ak ñi amuñ xëy na ñi am tam mën nga leen a yóbbul ñu leen a jox ko sama. waaw saako ceeb diwlin ingrédients yi ànd ak moom cent vingt huit milliards. waa ji nee na mille milliards lay wut. kon ñëpp mën nañu am. waaw léegi nag. problème mu impôt yooyu moom ci discours am bi réglé na ko waaw problème bi muy jox transport yeeg yooyu moom loolu réglé na ko lii dundu la dund dund la ñu wax dund pour technique nit ñi comme France mais Mauritanie ñin lan la ñu ëppale alaaji Mauritanie lan la ñu mëne économiquement ba war a fay courant ak ndox population bi ñun ñuy am ñun ci tànn ku ci am facture yu mille francs doo ca bokk nga dugg ci benn kër fekk fa juróomi waxambaane yoo xam ne ay woyofal lañ yor ku ne junni ku ne junni ku ne junni ku ne junni ku ne junni nga dajale ko mu jox la juróomi junni juróom benn mu jox la juróom benn junni nga ne ñooñu bokkuñ sax <laughs> non attention ah moom laa wax fii kenn ah, boo boo ko boo ko paramètre ci gis ay juumte yu doy waar ah. bi ci des itam mooy boo boo lakkee lu ëpp deux cent cinquante kilowatts ah euh, au ñu nga ñu fay loola la tegu hmm. ca loola non dañuy annuler facture aide boobu yow yaay fay lépp sa consommation yaa koy fay. te li ñu xamul mooy. waaw bu ñi toog leen vingt léegi vingt ngeen toog seen kër. consommation de dafay yokku. waaw consommation day mhm. <laughs> euh, itam ñu ñu xam ni yëf du aide. c'est-à-dire que man man woote aide bi laay bañ a dégg du ndimbal. tawat la ñu ni toog leen ndax bañ mu wàllee. lii lañ leen lii lañ leen toog toogloo. ma ni alaaji du ndimbal. c'est très important mm-hmm. toog leen jooju sax am na ca yenn yoo xam ne boo ko xoolee mm-hmm. non danga naa ni est-ce que lii bu dee ndimbal lañ ko tuddee. Mm-hmm. est-ce que waroon nañ koo def. loolu moom moo jariñ di ko laaj. yéen nii rax na daal rax na rax na kaay ma woon la. Mbaye Fadia alaaji Mbaye Fadia na commune golf mhm. xoolal lii la jox waa Fadia ñaari siyo madaar yi ay sachet madaar la. ak madaar bi ak saabu bi lii. mu ne lii. Mhm. déglu ma. Mhm. ma ndax seen kër mu ne ma noo fajaa ba mu daj. ñoom moom i sàmb seen Fadia Fadia ba mu daj. lii lañ leen yónnee lii lañ yónnee délégué bi lii. Ah, war naa la fi benn maire yi. lii benn mairie bu bokk ci ñu moom suufu AIBD benn butéelu benn butéelu antiseptique la séddale famille. Massar bu fiit mi tamit dugal lu mel nii fiit mi fiit mi ba mu daj alaaji lii. Mhm. déggoo ma de lii. kokkali nit ñi ak fontoo nit ñi lañ war a baax xam nga xam nga xam nga yëpp nit ñi yëpp nit ñi weesuwul ab député taxaw naan sama salaire dama ko jox réseau. Mhm. des enseignants apéris. Mhm. da koy médiatiser le ridicule ne tue plus dans ce pays là man député sama salaire laa may le réseau des enseignants apéristes yéen ñu dénk leen nguur ngeen war a jàppale nit ñi mooy nga naan sa salaire nga may yow sa jàngalekat yi yow yow yow yow sa jàngalekat yooyu nga xam ne ñun yéen lañ fal gis nga coowal ceeb bii dana jëli le dessus sur le corona coowal corona bi alaaji fi mu yegoon ci. ceeb euh, médiatisation ceeb bee ko nar a raw ndax la ca nar a am ci mbiri kàcc wax lu dul dëgg wàcce saako yi seen biiri kër nañ dem ba ci kanam mais nañu dénoncé waaw loolu laa la wax préfet bu mbuur moom préfet bu mbuur tin ban préfet moom la ñu wane ci réseaux sociaux yi mu joxe benn numéro xaw ma. tin est-ce que du moom kon. non mais képp ku gis. la ko am responsable politique buy luubal. yal na ko yàlla sàmm. buy luubal dundinu askan wi. te gis nga lii ku mi ngi tudd lii ku la jëg. mi ngi tudd Mor Talla Tine la tudd Alaaji nee na. waaw ah, yaakaar naa moom la nee na nee na ménage bu nekk xam nga loo am. moom la cent kilos ceeb. dix litres diwlin. dix litres euh, dix dix kilos euh, sucre. dix kilos pâte alimentaire. ak fukki saabu ak juróom-ñett. mu ni loolu mooy composition kit ak euh, kii bi maanaam kit bi loolu la képp ku ñu jox lu dul loolu lankal bul jël ba noppi nga def réclamation ñoom ñu xool ba ban commission de distribution ñoo nekk foofu lijjanti ko ci ni mu gën a gaawee CRD la jiite xaw ma ko waaw mais comme demande woo mais comme demoo laaj yi bu ñu ñëwee ba ñu la am di kon yow jàppal sa bopp ni yow bokk nga kon xëy na si ñu war a am non non kenn demandé doo ne yow demandé jiwoo laa wax. mais bu ñu nee ne la bu ñu ñëwee bind la. jàppal ni yow da nga am léegi bu ñu la joxee te joxuñu la loolu cent kilo ceeb mu ñaari sàkku. Hmm. dix kilo suukar dix kilo dix litres diwlin dix kilo pâte alimentaire. bu kit bi ma tudd loolu delloo leen ko. Hmm. bu kit bi ma tee loolu nga war a jox fa cent familles. Hmm. par exemple nga jox fa dix familles. ñeneen ñi dañuy supposé ñoom bokkuñ ci rek. ah waaw y' a ça aussi. c' est dañoo war a def liste woote. ne yow mii ci nga bokk. boo ko jotulee nga dem réclamer mais soo waree jot xamoo ndax war nga jot boo jotul doo réclamer. ba pare critères yi lañ critères yi alaaji. néew ju doole néew ju doole. dëkk bi day am ay personnes insoupçonnées ñoo xamante ne nii yow mosoo xalaat ne. ñii lii la ñuy souffrir intérieurement seen biir kër de. nit ñi sag lañ sagang leen di rey. aussi. quoi ñu jubadi aussi ndimbal lu ñuy jox ko loxoom jotul ginnaaw les ci dogale. nga koy lekk les ci sàcc. waa léegi. pourquoi léegi léegi ni mu. pourquoi carburant waaye yow carburant bi total. dañu woon moom trois cent millions da koy def carburant. Mhm. nee nañ carburant ak chauffeur lañ ca fay. ana carburant wu total ba. ah trois cent millions carburant de bëri na moom. ah bëri na de. yóbbu oto yi à l'intérieur armée bi tam mi ngi taxaw kii camion ñun de li ñu gis port keroog moom. xanaa camion armée bi ci gënoon a bari lii lan waaw ñu ci ëpp de ñoom de ñoom la de jàmbaar lañ de. Ah? bay takk te borom te nii de kenn du ñoom. xoolal lu ñu bañ a nekk kenn du ñoom kenn du ñoom it alaaji dara mm-hmm. bu ñu wàccee sur le terrain. Mm-hmm. mais est-ce boole nañu ci commission distribution. dof yi loolu la de yàqal leen. yàqal leen ko bu ñuy ye lekk gi la ñu warul jaarale ci loxol maire yii. dañ ko jox soldat yooyu di ko séddale. ah mais soldaar yi itam bu ñu demee. sur le terrain alaaj xanaa ñu jubal directement ci délégué de quartier maire yi daal li leen war mooy si budget wu seen maire yii nañ ci génnee nee naa la benn secretaire municipal nee na ma début début début début budget la ñu ne ku mu neex génnee instant bii nii trois cent millions am na ci maire yoo xam ne alaaj xam nañuy def waaw dañuy jënd euh, benn tonne ceeb waaw ak tuuti diw. waaw jaxase ko ñëw ci benn association. waaw jox leen ko. ni leen léegi. damay owaat presse bi fu woon leen ni. waaw yéen yéen a ma jox li dimbale moo ko ci Covid 19 bi. ñun ne suñu gox bee moom xëccoo fa am sax nag xee xëccub xëccub dund sax foofu la ñu tegoon ni ni ni ñi ko joxe foofu laataa bañ koy jël dañ koo xëccoo. dara laa dul jox meer du ma jox dara préfet. ay jeu la du ma jox dara gouverneur. état laa dul jox sama ndimbal alaaji bu ma yoree sama ñaari junni yu ma war a mën a dimbali daara jaa ngi sama koñ alaaji man maa amee ay daara am na suñu koñ neel benn ñaar néew ju doole am na suñu koñ ñett jirim am na suñu koñ baayoo am na suñu koñ am na fa ñoo xam ne ay yaayi seex am na fa ñoo xam ne tamit alaaji ay faqiir ak ay miskin ñoo xam ne ñemewu ñoo génn tàllal loxo ah, sagan leen di rey seen biir kër bu ñu xëyee dañuy taal def fa ndox ak xorom ak ay ibnu sabil waaw muy comme Matam. di sagu ñu doon génn di lekk ci àngana ak may gay guddi gi dootuñu reer te dëkkuñu fa ay daan ji doole lañu te noonu nit ñi xam nañ leen ah. chaque jour nga dajee ak ñoom ci tànganaay wallaahi loolu la dunde boo leen bëggee dimbali daal alaaji di nga dem ba ci ñoom laa lay wax ni yëkkati te yàlla tax ndànk jox leen ñu waxante dëgg i gis nga wuy ma mm-hmm. na nit ñi taxaw nit ñi nañu taxaw am fulla ak fayda kàmbareen gee mantulaay bu mu jàppee ne gone la wala liggéeyewul ci mairie bi loo fa gis luy jéem a lëndëm il faut dénoncer président de la république jot ci dénoncer moo ne leen leer mooy wax chaque journée force restera à la loi moo ko fi wax force alimentaire restera à la loi alimentaire aca alaaji waaw am ko soxla léegi <laughs> jaajëfal El Hadj Ahmed Aidara jaa ngeen jëf yéen yi ci programme bi ci